Isal lan la Isal dara la tamaami la ndeysaan moom pour ci kër gi la dëkk de ci kër gi sama nijaay bi njaay raja mooy ki demoon Gambi moom mooy soxnaam ah mooy soxnaam mooy soxnaam moom ndeysaan day dafa nekk jigéen yoo xam ne dafa dafa jafe ci moment bii ñu toll dëgg la parce que gis nga nit su la yàlla dénkee nga téye cëru yàlla ba cee tibaat yow li nga am pour cërale nit ñi loolu xol bu yaatu moo ko mën te li muy ñàkk li muy am yëpp noonu la mën a nekkeek ngorom ku baax la man depuis bi mu fi nekkee moo tax mënuma sama xel dem benn yoon sama yaay ndax moom borom baax la kii de mat na roykaay hmm. bu baax sax te dinaa roy si moom nag parce que yàgg naa ko fee gis waaw mais àdduna noonu la yàlla sax dafa ne nañu ci yonent bi ci ay mbaax toxal su demee ba yërëm rek imaanam réerul te man lii laa doon wër ci yow bi ma lay naan kaa ñu ànd bëgg soo xoolee yërëm ku la téye téye loo xam ni xam ni yërmande mu ngi ci loolu moo am solo ci dundu nit. dinaa amee eh, nah, iya. nah, non la mais tay la da ngaa commencé waane de ko jaawale bu baax di dugg ci affaire islam yi noonu ni ñuy def waaw non la aduna metti wul mais mhm. dafa metti ci kaw nga mhm. xam baña def mba ngay dund te do yek so yëgee rek xam ki nga don ah. ya ma fekk fu lëndam dugal hmm. ma fu leer tamit mais fepp leer say yi na lañ dul gis rek mbaadu loolu am mais nak ben jour bëgg na ñu dem seen kër yi loolu nga war a def. mbaa du ma génn ak yow fii nit ñi naan Noreyni day jàpp xale bi. non non man dama ko sax. Hmm. damaa yàkkamti nga ñëw ndogu suñu kër. dinaa def loolu yàlla baax na ah. mais nag jigéen roy te jigéen mooy matériel àdduna hmm. te na nekk lu baax. te incha bëgg naa bés bu lay lay jël si ñëw fekk ci yow loo xam ne. ab maam jaara laa la a <laughs> loolu moom bëgg naa nga ci yow. na sa xol seet. non foofu mu am. foo mu am parce que tamit damaa reprendre rek mais lépp day baax. bu ragal dara ñoo fa nekk. borom baax la gis nga moom mooy loolu. moom amul kii mooy suma yaay. yaay laa koy xoolee. parce dafa dafa nekk nit koo xam ni mooy li ñu wax lu puus kenn du ko diis. lu koy xëcc da koy ëpp doole. te moom moom la doom su toppoon nijaay njaay rek. Mm-hmm. kon waxatuñ ko. xam moom sama toos mooy loolu mbuus muy dem la. sa toos de xuloo laa fekk moom xuloo boo xamante ne boobu nekkoon fi sax. Eh, xew laa doon daa mën a woo moom moo mën a tooñ. <laughs> fekk ma may toog seet mu ne ma loo koy doy. muus ma ca waalo soo diggee ci may gaam galaa ngaa commande mu laal sa tànk. mooy sama nijaay. mbaa de <laughs> yow xanaa xamoo ko dafam la.